Ah, ñoo ngi lay jaale ki fi jóge muy sunu papa bala Ballago sekk yan kàddu nga ñuy wax Maître Sèye ngi leen di delloo njaal euh, di wax àddina bi ne ku baax jóge na fi yàlla may na ko xolam fay na ko xol yàlla na ko yàlla euh, fay xolam teeroo ko àjjana mbooloo bi fi nekk nii rek mooy firnde ne ki fi jóge yàlla baaxe na ko parce que mbooloo bi sax xëy na wàllu yoo ngi fi tax mu ngi fi rax parce que sopp nañ nit bu génnee àdduna mbooloo mu bëri gunge ko man euh, li ma mujj wax ak moom mooy ajuma passé daf ma ne je suis rentré dans l'histoire bi ko yëgalee nag ko li la doon topp ci tribunal yëpp setal nañ la tribunal setal na la léegi set nga wecc mu ne ma je suis dans l'histoire ma ne ko cour suprême rendre na benn décision boo xam ne étudiants yi dañ ko jàng mm-hmm. magistrat dañ ko appliqué mm-hmm. fii ak bitim réew mm-hmm. dans tous les pays membres de l'UMOA parce que arrêt de principe la mu ne ma kon dee maître xanaa dëgg boo wax ne je suis rentré dans l'histoire il est rentré dans l'histoire yal na ko yàlla xarale àjjana loolu amoon lu may wax daal di seede ne nit ku baax la maa leen di fay njaal yoon setal na ko définitivement te li ci doy waar mooy bu fekkoon ne gaañu na mm. ca cour suprême attewu ko mm. kon atte bu ko atte cour d'appel koy dem day day day dem day dem tey alaxira ak loo xam ne am na ñu lu ñuul si moom. mais yàlla def na la 4 mars bii nga xam ne fukki fan la am tey la ko cour suprême setal ci lañ ko doon topp ci affaire faux billet. kon yoon toppatu ko dara fu mu dara dafa set wecc wecc ne liñ ko sàng tey.